gis àddina tukki ci sa nag moo rawoon malaaka balaa nga koo gis àddina tukki ci xaal yooyu la nekk nag ci wàllu liggéey te fu jafe nag ndax boobu tubaab baa ngi fi amaguñu indépendance gannaaw indépendance it biñ ko amee coow li ne pour ndax ñi ko yor mënuñu ko te teg ko bët muy xelum baayam di loxol baayam di tànku baayam di làmmeñu baayam ñépp teg ko bët mu fexe ba génn ci situation yooyu te tax ko ci waaw ah, maanaam kenn jéppiwu ko doxi diggante woy juróom ak kilifa yi fi nekkoon ñépp muy sol dàllam di dem di leen gane ci turu sëñ Babacar si di defar di rataxal diggante yi digganteem ak sëñ lu Mbakke gis ngeen lim ci dox maanaam diggante sëñ Babacar si ak seexul sëñ Fallou Mbakke digganteem ak sëñ Modou Moustapha digganteem ak mam Abdou Hamid kan digganteem ak Alaaji Ahmad dem Sokone digganteem ak mag ñépp sëñ Babacar si bàyyi ko muy dox digganteem ak mag ñi sëriñ Mansour féete woo daara ji moo tax moom it mu yor borom turu borom daara ji waaye sëriñ si am ne na léeg-léeg ma tooñ ko ne ko man maay borom daara ji la du yow waaye ñoom ñaar seen complice la nee na Serigne Mansour li lay won ne xamul fu jant bi di fenkee ndax baax mu ne dafa am des ñuy waxtaan ba mu yàgg mu ne ma Cheikh Tidiane ndax bi ndax génnee nañ ko Paris match mu ne ko yow Serigne bi foo ne Paris match kañ la fi jógee mu ne ma ah lu ma ci xam lu fi nekk ma ne ko soleil fi nekk <laughs> ah, journal bu ñuy wax le soleil moo fi nekk mu ne ko ah bind nañ ko le soleil <laughs> sëñ Mansour ku ko mere rek yaa ko tooñ. ku ko mere yaa ko tooñ ndax moom daara ji rek la xam waaw e, ma def benn bay na xaw say ni mooy entre parenthèse encore ti nee na ba bii bi nga xamee ne nag denc na soxna sëriñ Serigne Mansour denc soxna ñu jox ko moom soxna su ñuy wax soxna Safiyatu dem soxna sa fi dem Alaaji Ahmad dem a ko jur waaye ndeyam moom soxna Safi dem Alaaji Abdou Hamid kan a ko jur aminta jeng aminta kan soxna aminta kan moo jur soxna safiyatu dem ak alaaji ahmad dem soxna aminta kan ak soxna astu kan ñoo bokk ndey ak baay maam abdou hamid kan moo leen jur kon gis nga jëlaat na boppam mbokkam nee na waaye sëriñ cheikh nag moo ko njëkk a am bant bu mu gis nee na ngénte la kenn mënu la ko wax nu mu mel ñépp ñëw mu ne ndakaaro ndarak te ngee jëg lëbu yeeg ñépp ñëw nee na kër gi kenn du laal moromam kenn du tudd moromam boobu kër gi mu ne ñun ñépp ñu xëy rek jubali fa ca ngénte la nee ñu ngi sañse nag ba mel ni per nee na ñu ñëw toog ne sëñ Babacar Si ne ko koy ne sëñ Mansour koo koy tuddee mu ne ko moo ko waxati waaye papa xam nga ko mu ne ko waaye wax ko rek mu ne ko jaru ko xam nga ko waaye xam nga ne man du ma doom te tuddeewu ma ko Cheikh Tidiane waaye ndax maa moom dañ fasante wëllëre kenn ko ne sa taaw na nga ko tuddee sa morom maa ko njëkk a taawloo nag moo tax taaw bii di Serigne Cheikh Tidiane si bu Serigne Mansour ñu tuddee ko Serigne Cheikh. nee na ñu ngénte ba ngoon jot ngénte la neex lool mu ne géwél yi dar ñu nag ñu ngi sañ sa benn boy di dem di ndokkeeli Serigne Babacar nee na bi ñu yeggee waaye bi ñu Serigne Babacar jippi keroog mu ne ci lañ yaroo ba foofu mu tiitaru nag yaakaar na ñoo ci nekk ndax ñu ngi sol ay mbubb yoo xam ne la muy jar kenn mënu la ko mu ne leen ci nii ngeen nii ngeen mel poussière bi leen topp nii ndax lan seen mbubb yu rëy yi ngeen sol ndax lan yéen seen kër maam alaaji Malick gi aada yàqu ko ngeen bëgg a ñëw dolli aada ci da bëgg a yàq seen kër maam alaaji Malick nii la ni ni dal ci suñ kaw dal ci suñ kaw bañ yaakaar ne sax àddinaay bëgg a tukki mu ne keroog la géej nag mu ne waaye booba la ñu xamalit suñ bopp na kon nga xam ne way juróom mosu ko bàyyi muy Serigne Babacar Sy ci loolu la nekk ci loolu la nekk wax naa la digganteem ak waajuram wax naa la digganteem ak Soxna Stukan wax naa la digganteem ak Serigne Babacar Sy wax naa la digganteem ak Cheikh Andoram bi di Serigne Mouhamadul Mansour borom daara yi waaye ma wax la nag léegi kan mooy Serigne Cheikh en personne mooy Serigne Cheikh en personne nag mooy Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Sy al Maktoum bi mooy Cheikh Ahmad Tidiane si Chérif barzaqul baraziq taajil arifin mu middil awliyaa yi lu la réer ci Seydina Cheikh xool ko ci Serigne Cheikh lenn rek la dolluwul donnuwul ci moom mooy xatmiya ak katmiya leer na Serigne Cheikh lenn rekk la donnuwul ci turandooram te loolu du cëri kenn ku dul turandoom mooy xatmiya ak katmiya waaye lu dul xatmiya ak katmiya Cheikh Seydi Ahmad Tidiane si al maktum doon na ko ci turandoom bii mag ñee ko wax bii ma ko waxal boppam te bi nga waxal sa bopp nag moo gën a wóor parce que am na loo xam ne boo ko waxalee sa bopp te du dëgg lam doon wax rek ñaar mooy am ñu max la wala nga bokk ci rislaan yi rislaan yi rek waaw ah, te xanaa bëgg na boppam te yàgg na ko wax te dara dalu ko te dund na quatre-vingt-douze ans loola dem te moo doyal moo doyal de moo dagg dundam loolu dinaa ci ñëw doy na ci rek sëriñ Seydi Hadj Malick Cissé bi ma koy laaj ci mujj dundam mu ne ma bés bi mu génn àddina bés boobu woo na ma yónni ma mu ne ma Maodo ma woo ne ma sama nee na mu ngi nii di naan kafeem nee na boobu 4 heures mooy jot tisbaar jëm 4 heures na mu ne nga demal ko ci dëju diw góor gi Juuf la sant mu ne ko demal ma ci dëj mu ne ko nga demal ko ci dëj bi nee na nga jaar fi te jël jaxal bi nee na ma jaar fa jël jaxal bi dem ca dëj ba ba ngoon ma wëññeeku ñëw sama kër mu ne fi ma summeeku ne naa xoppoo ndox te julli tàkkusaan mu ne téléphone bi sone ma jël muy Pape Malick si port parole bu baax bi la sëñ Pape Malick nee na mu ne ma ñëwal sama kër léegi dama la soxla sëñ si ne ma jël taxi dem mu ne ma waaw dama bëggoon ñu am fu ñu ànd ndax Ahmad génn na àddina nee ma ne ko ah waaw Sidi Ahmed moom mag la woon nag te dafa wéna di woon nee mu ne ma du Ahmad boobu de mu ne ma ne ko ah waaw ban Ahmad mu ne ma Ahmad génn na àddina ma ne ko ah dégg naa li nga wax Sidi Ahmed mag la woon mooy bourricière la doon la ko foogoon mag la woon te dafa wéradi mu ne ko waxuma boobu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si al génn na àddina laa wax nee na ma ne ko sëñ Pape lii kenn du ko kafee bu dee da ngay kaf xam nga moom daa mën a kaf bu dee da ngay kaf teg ko ci suuf lii kenn du ko kafee góor gee ma yónni nii rendre gu ma ko compte nga ne ma gaañu na mu ne ko bim naa nee kafeem ba noppi la tëdd tëddaay bu jekk xale yi ne ko la ne yaram wi daal moo sutaati ñoo ko bàyyil ñu évacuer la Paris mu ne lu maa doyee Paris man may dem ci mag ñi ngeen naan damaa dem Paris fu mu la may wuti Paris kon kooku xam nga xam na fi mu jëm loolu dama ko indi rek waaye dit mooy jeexital ba fa tabaarakallaahu kon siise moo tax xaj Malik siise ma ne ko képp kuy wax waxtaan ci sëriñ Cheikh te tudd la ak naafeq ngi ci moom ci lu mu mën a doon ñu baal ma nag ci waxin wi ndax daf ko jege woon te xam ko sës ci moom rek fa tabaarakallaahu te ñépp teg nañ ci seen bët digganteem ak Serigne Cheikh moom Hadj Malick Cissé waaye Serigne Cheikh di nit ku doy waar moom ci boppam gannaaw xam-xam bi wilaaya gi daf koy not waaye moom moo mujj not wilaayam ba di ci soppandiku ñu bari seen wilaaya moo leen di not di leen defloo ci lu dul seen sago waaye ñaar ba ci ñett walla ñeent Seydil Hadj Malick Cheikhul Hadj Abdou Aziz Seydi Hadj Mansour ak Serigne Cheikh Ahmad si Al Maktoum ñoom ñoo not seen wilaaya fu mu bijj jëm fu ñu bëggul rek ñu wàññi ko loolu nag moo gën a jafe ci wilaaya te yàlla defal na ko léeg-léeg mu wax loo comprendre nga foog ne sax rëyibu la walla leneen fekk loolu ci yeggul sax asamaanu benn fa tabaarakallaahu ci xam-xam bu mat ak xam-xam bu rëy ak éloquence bu mu am te kenn jàngalu ko tubaab dafa bokk ci maqaamay xutbaaniya làkk boo bëgg a dégg dégg ko moo lay wax ne yéegoon na ci maqaam waaw loolu pour ñi may dëgloo tax may wax ak ñi may seetaan dafa bokk ci maxamatul qurbaaniya làng boo bëgg a làkk làkk ko soo ko jàngeek soo ko jàngul soo koy soxla rek mu ñëw xam nga lu tax wa allama al aadama asmaa kullaha summa aradahum ala al malaikati fa qaala anbiuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqin inni jaa'iluka fi l ardi boo nekkee xalifa boobu lang yépp ngay dégg te huwa moom Cheikh Sidi Ahmada Tijaani si al maktum xalifa la woon na maam aadama nekkee woon xalifatullahi fil ard te làkk bu mu bëggoon a dégg rek noonu la déggee woon séeréer <laughs> noonu la déggee tukkuloon noonu làkk bëgg a làkk-làkk tubaab nag moo ci jaaxal ñépp même moo yi muy appliqué tubaab yi ci seen bopp sax daf leen di jaaxal ci ko toogul ci banc école kon xam nga ne am na leneen lu nekk ci gannaaw banc dëgg wala du dëgg kon na la wóor ne am na leneen lu nekk ci gannaaw banc la ca gannaaw banc nag foofa la toogoon moom waaw ndax lawhul mahfuz bii ngay gis nit ñi di ko tiitaroo lawhul mahfuz xam-xam yi ca nekk pour ñépp la pour ñépp nag pour tout le monde ku def itti rek mën nga caa xam nëbbuñ ko kenn làquñ ko kenn c'est pour tout le monde bi ci lawhul mahfuz te yonent bi nee na lawhul mahfuz li muy rëy rëy rëy ni mu réyee lépp lu yàlla bind ak seeni mbir mu nga ca lawhul mahfuz lu yàlla bind nag laa wax mu ne kaamil bii yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kaamil bii li muy rëy rëy 6666 aaya benn ligne la fa ak dogit matul ñaari ligne 6666 aaya matul ñaari ligne benn ligne la ak daggit daggit bi sax matul moitié un quart la kon lawhul mahfuz rëy na te xam-xam ba ca nekk boo tolloo ci maqaama bii sey Cheikh Ahmad Tidiane si al maktum toll woon boo ca tolloo lawhul mahfuz xam-xam bu ca nekk yàlla daf koy sol ci sa dënn moo tax nga déggoon turandoom ne maa fil kutubi illal xusumaat téere yi ay xuloo rekk ci ne waaye xam-xam newu ci la yàlla wax ci alquran nag moo la koy wan yamxu llahu ma yacha wa yusbit wala boog wa yusabit wa indahu ummul kitaabi du la waxul wax la ummul kitaab booba nag huwal faatixatul kitaab yi ku ko yàlla xamal mën nga wax lu ñépp di téye seen gémmiñ nga lay ko bërëj moo tax nga dégg maam moom Seexul Xaaji Maalik ne su ma yàlla nanguloon benn per ci salaatul faatixi boo ëllëgee ma ràmmu xeetu yonent bi yépp seeni bàkkaar lu mu rëy rëy ci benn salaatul faatixi boobu dinaa leen layal ba rëcc man Maalik kooku beneen wax la moo tax Serigne Cheikh nu ko neexoon mu def xam-xam ndax dañ ko ko tegal ci plateau lu ko ci neex mu jëli fu mu nekk rek mu jëli ko muy ci tubaab muy ci science muy ci grammaire muy ci géographie muy ci wàllu àddina istilu wax la waxtaanam mooy bu waxtaanam rek soo ko xoolee da ngay xam ne kii du nitu kese kese xeetu xam-xam yi muy wax ak éloquence bi mu koy waxee ak xam bi mu koy waxee ak xàmmee gi ak ràññee gi moo lay wan ne kii du nitu kese te la preuve gisagoo kenn ku koy def gisagoo kenn ku koy def te doo ko gis mu yor këyit këyit gu mu yor sax kooku daf ko fa teg noonu rek pour làqatoo ko bañ ca topp ko rek waaye soxlawoo ko ndax la muy wax te du ko xool moo lay wan ne kayit gi daf ko fa teg rek pour brocher loolu noonu waaye soxlawu ko ndax am na keneen kuy wax ak moom waaw daan na wax ne man Cheikh Tidiane mu ne ah, mu ne ah nit ñi de lu leen neex ñu wax waaye maag sama turandoo duñ tàqali ko lu ma bëgg xam mu xamal ma ko lu ma lënt mu leeralal ma ko fu ma ji bëgg a jëm mu xàllal ma ma ne mosuma tàqali koog moom te li gën a jafe mooy teg bët Cheikh Sidi Ahmad Tidiane teg bët yonent bi moom jafewul xam nga lu tax yonent bi rahmatan lil aalamiina Cheikhuna Tidiane xusuusan la <laughs> yonent bi huwa rahmatan lil aalamiina ni ñépp la moo tax jot ca yomb rahmatan lil alamin moo tax jot ca yomb waaye Cheikhuna Tidiane yi mi nga xam ne xusuusi la ci biir yonent bi lañ ko génne mu jot ca yombut waaw daan na wax moom Serigne Cheikh ne maag sama turandoo lam daan wax ne moo maamam nii waaye maag moom nii ci biir ak ci biti ba ci doxalin ñoom ñaar ñoo ko bokk ba ci doxalin sëriñ Cheikh ak turandoom ñoo ko bokk ci bañ aada ci bañ tuutal nit ci bañ cof nit ci bañ xas nit ci bañ ci bañ lu mu mën a doon rek da ngay seet histoire u Cheikh Sidi tiijaan yi nam bañee woon aada noonu la sëriñ Cheikh bañee aada nam fonkee woon xam-xam noonu la sëriñ Cheikh fonkee xam-xam na ko yàlla dimbalee woon ci itte moom Cheikh tiijaan yi noonu la Serigne Cheikh amee itte compa comparé rek doonte nag tubaab nee na comparaison c'est pas nuñ euh, nuñ ko nuñ koy waxeeti waaw kon nga xool doxalinu Seydina Cheikh ak doxalinu Serigne Cheikh ndono gi lay lay teguma ko ci bànneexu bakkan Cheikhuna yi mujj dundam fukki at ak ñeent yi mujj yépp ci dundam ñi ko doon gis bariwul ñi koy gis ñépp ci waxtu zawiya bi lañ koy gis suñ ko gisee mu def farataam ba noppi buy daw buy waaxu di dem ci kër ga kenn du ko ñemee dam loolu kenn ñemewu koon ci Seydina Cheikh kenn du ko dam bu yeggee néegam tëj loolu fukki ak ñeent Seydina Cheikh def na ko ku am doom bëgg mu tuddal la danga ko koy dee ci zawiya bi mu ne la indil liir bi ci kër ga te nanga ko indi yow kenn yow mi bàyyi liir bi yaa koy indi boo ko indee ba ci kër ga mu génn ci néegu xalwaam bi fekk la ci ëtt bi leewu liir bi nodd ci nekk noppu ndeyjoor bi li xam ci bu càmmoñ bi ñaan jox la ne la demal tur sàngam la tudd jeex na soo amee néew bëgg mu julleel la koy du dem de mu jugi demul dëj da indi néew bi ba ci bunti kër gi daaru miraar fam dëkkoon indi néew bi ba ci bunti kër gi teg ba ñépp sàppee ba pare mu génn ndànk ci baytu xalwaam ñëw ne allahu akbar amul nuyoo amul waxtaan amul dara allahu akbar jullee ko waaxuwaat dugg biir baytu xalwaam kenn du ko jox loxo sax fukki at ak ñeent Cheikh Mamadou Ghali moo ko laaj ne ko xaal bii ngay dund lu tax mu ne ko dama yëg ne nit ñi aada rek lañ gëm gëmuñu yàlla ni leen bind mu ne te su ma yéexee ñu yàq li ma yore moo tax may doxaleek ñoom nii xaal boobu Serigne Cheikh doon na ko wala doon na ko doon na ko piir foofu laay njëkkee bi ci gën a doy bi ci gën a doy rek exemple ñu profitoo ci ñaanalaale ko yàlla muy Lamine Diack procès tàmbali na tey yal na ko yàlla may ndam donte am na ko nag ba pare doomam bi sëriñ Cheikh bi doon bi doon denc moo doon denc doomu sëriñ Cheikh muy soxna Asiyatu keroog bi soxna Asiya génnee àddina sëriñ Cheikh a ko jur dëgg la wala du dëgg moo ko jur ci ndiggam sëriñ Pape Malick mii ñëw ne ko asiyatu génn na àddina mu ne ko ah loolu la yàlla ndox mu namm ci moom mu ne ko nu ñuy def mu ne yóbbu leen ko Tiwaawan ngeen denc ko waaye ci ndigalu boroom këram mu ne moom dafa ne yow loo ci wax rek loolu lañu ñu wax nee na te Lamine Diack xam ngeen ne xam naa ko man mu ne ndax nettali ma na ma sax moom ci boppam moom <laughs> bàyyi Lamine Diack nettali na ma ci boppam faatu gi ni ma amee nee ma moo ma gunge ba aéroport moom Asi ma yegg Paris France dem Monaco nee na dama yegg teg sama valise di ubbi valise bi téléphone fixe bi sonné nee na ma décroché ne allo ñu ne Sénégal ma ne lu xew ñu ne Asi mu ne ñu ne ma Asi génn na àddina ma ne ban Asi ñu ne ma sa bos. Hadj Malick Cissé nee na. bi mu ñëwee ne ko nu ñuy def mu ne yóbbu leen ko Tiwaawan nee na ma ne ko buñ demee ñu wàcceel ko kaamil ak lan ak lan mu ne ko ëpp naa def bu leen ko wàcceel kaamil nit ñi ñëpp ñu gàpp ndax ñun wàccee kaamil lañ xam ci néew mu ne ko ëpp def bu leen ko wàcceel kaamil nee na ne ko sëriñ bi lu tax mu ne ma alquran dafa diis ndax yàlla dafa ne hudan lil muttaqina njub la ñeel ñi ragal yàlla te wóoruma ndax aasi ku ragal maa ko jur nag waaye wóoruma ndax affaire xol la jàmm bi ak boromam rek kenn xaju ci te waxal na ko baayam sëñ Babacar Si bi ko allo di laaj kaset yaa ngi fi boobu moom déglu leen ko mu ne di ma laaj di laaj di ma laaj ba yegg ci sëñ Babacar ne ma ndax ku ragaloon yàlla la ma ne ko ah wóoruma nag ndax affaire xol la jàmbeeg boromam rek ñoo ci xam dara waaye daal màndarga yi tegtale ni kuñ ko gis ci yow ku ragal yàlla nga moom incarné woon na ko waaye mënuma laa waatal nag ku ragal yàlla la te ku ne xam nga ni sëñ Babacar si ragal na yàlla te lii la tontu Alassane Ndiaye alu moom sëriñ Cheikh kon li ma lay wax ci doon turandoom ñëw na nee na pa eh, sëñ Pam ak sëñ Hadj Malick ne ko waaw kon nu ñuy def mu ne su ngeen demee rek ngeen jàngal ko ay salaatu ala bu dee salaatul faatihi moo gën a ti nag mu ne ko waaw sëriñ bi lu tax mu ne ma waaw alquran dafa diis hudan lil muttaqina la yàlla wax ñi ragal yàlla te wóoruma ndax aasi bokk na ci yonent bi nag rahmatan lil alamina la yërmande la ñeel ñépp te kii dem yërmande rek lañ bëgg ci moom jeex na jàngal leen ko salaatul faatihi yem ca nee na ñu dem ñi fee ndigalam te moo ko jur ba léegi tànkam dëggul ca dëj ba ba léegi tànkam dëggul ci dëj ba moo tax kum jaale jiwul nga mën a muñ voilà moo tax kum jaale jiwul nga mën a muñ soxnaa su boppam muy soxna Safiyatu moom moom ku njëkk a génn àddina soxna Safi dem ndax sëriñ Cheikh dem na fa tegu fa tànkam ku muñ sa dëjub doom muñ sa dëju soxna waaye dëj boo dematul nag boroom war naa mën a muñ sëriñ Cheikh xàmmewul doomam ak doomu jàmbur sëriñ Cheikh xàmmewul taalibeem ak taalibe lii moom ñépp mën nañ ko ko seddeel dëgg la wala du dëgg xàmmewul doom bi mu jur ak doomu jàmbur xàmmewul taalibe bi aju ci moom wala kër Seydou Hadj Malick ak taalibe bi aju feneen na muy waxtaanee ci ñeneen ñi sax boo yéexee danga naan ñooñu am na lu ñu ko defal bi am na ñu gàtt xel ñoo xam ne sax léeg-léeg ñu wax ay tract yoo xam ne dangay ngay foog ne ñoo jàngal Serigne Cheikh wala ñoo ko roof wilaaya waaye loolu koo ko gis ci moom rek màndarga ku sës ci yàlla la dafa sës rëkk ci yàlla moom Serigne Cheikh aqtaab yi sës rëkk ci yàlla Serigne Cheikh ci la bokk. yombul nag ñooñu ñooy doon ay xutbu ba pare nag sës ci maqamatul siddiqiya loolu yàlla may na ko kon Serigne Cheikh Ngom ci wàllu jaamu yàlla moom la ca wax lu wér la ndax moo bu dee ci at moo magoon Serigne Cheikh bëkk néegu sëriñ Babacar si la woon moom Baye Omar Samb moo wax ci gémmiñam ne ma bi may bi may ñëw Tiwaawoon ñu di ma jox sëñ Babacar juróom-ñaari at laa am moom Baye Omar Samb ne sëriñ Babacar jël ma teg ma ci wetam maay root satala si wala sëñ Abdou al Amin mu ne may tàngal ndox gan yi ñëw yépp maa leen di gàttandu maa leen di tegal añ reer ndékki mu ne léeg-léeg dinaa ko def ba deux heures trois heures du matin mu ne sëñ Babacar ne ma Omar Samba demal nga noppal bi sëñ Babacar si di waaj a génn àddina bàyyi Omar ma nettali mu ne ci la woo Serigne Cheikh ne ko dënk naa la Omar Samba bul tàqali koog nee na Serigne Cheikh dem génn mu ko Cheikh Tidiane dënk naa la Omar bul tàqali koog moom. nee na Serigne Cheikh demaat bay génn mu woowaat ko ne ko Serigne Cheikh dënk naa la Omar Samb bu tàqali ko moom moo tax Serigne Cheikh jëloon bakkanam bi gar ko ci Baye Omar kenn du lal Baye Omar ci kaw suuf preuve bi rek li la koy war wan ku Serigne Cheikh di recevoir Baye Omar dina toog way laa moom du la recevoir na ngay président de la république na ngay sëriñ na ngay patron na ngay baadoolo koo mën a doon Baye Omar dina toog way laa moom sa soxla du faj na jur juru la xanaa mu neex ko mu ne Omar Samb may ma ma waxtaan ak moom dëgg Baye Omar ne ma jaamu yàllaam de man daf ma yéem fekk maa ko laaj <coughs> maa ko laaj wàllu jaamu yàlla Serigne Cheikh noo ko gisee mu ne ma lu ma yéem la mu ne mënumaa waat ne du nelaw waaye mosuma ko gis mu nelaw Baay Omar moo may nettali rahmatullahi alayhi wa radiya anhu te feeñ na ci bi Baay Omar génnee àddina fañ ko denc pourtant Serigne Cheikh a fa gënoon a yàlla mu nga ca penku sëriñ Serigne Babacar si wala déet ndax Serigne Cheikh la Serigne Babacar jur te moo ne Omar Samb dencal leen ma ko barab sàngam fañ ko benn denc tey Serigne Cheikh a demandé ñu denc ko ci li ma yëgit moom dong fa tëdd ku santul si walla ku bokk ci ku bokkul ci santu si moom rek bàyyi moom moo ko am moo lay wan ne Serigne Cheikh sàmm na kóllëre ku sàmm kóllëre la Serigne Cheikh gisuma ku ko gën a mën a sàmm kóllëre ci kaw suuf gisuma gën a mën a wattandiku ci kaw suuf moo tax wax na ko ne bés mu ne ah lenn moom ku ko waat wàcc mooy Cheikh Tidiane du tooñ mu ne man duma tooñ loolu moom ku ko waat rek wàcc loolu nag nit ku ko yàlla may desee natu la dara mu ne man Cheikh Tidiane du ma tooñ ku ko waat rek wàcc moo lay won nag digganteem ni mu defal Baye Omar moom fuñ ko yóbbu moom ñaata mètre wala ñaata kilomètre digganteem ak sëñ Babacar ah foofu laay dinaa ci foofu laay jeexalee wax ni ñaata digganteem ak sëñ Babacar ñaata kilomètre la trois jëm quatre kilomètres diggante si Baye Omar Samb ak sëñ Babacar si matul deux cent mètres <laughs> matu ko matul deux cent mètres kon kii xàmmewul boppam ak jàmbur moo tax mu daan wax ne nag moom Serigne Cheikh ne nit ki feek nawloo woo ko doo ko defar ci yàlla mu ne nit ki feek nawloo woo ko doo ko defar ci yàlla danga koy nawloo ba noppi door koo defar waaye boo jàppee ne diw sama taalibe la rek doo ko defar mukk mu ne yàlla dafa xam taalibe yàlla xamul taalibe ay gor yoo ànd la xam yàlla xamul taalibe yàlla gor yoo ànd la xam mu ne moo tax alaaji Malick ñi ma àndal ñépp àndub gor la àndee woon ak ñoom moo tax mu defar leen waaye nit ki boo ko sous-estimé doo ko defar te taalibe nag koo ko xool ci moom rek yaa ngi koy sous-estimé te koo sous-estimé doo ko doo ko defar mukk xaw ma ci àddina de waaye ci yàlla moom doo ko defar ndax yàlla foofa ku fay yéeg xamul ki yéey kii kan ngeen ñun la loolu la yàlla xam ne yéen la ñan ñun la foofa man la amut ñun la wala yow la boo yeggagut ñun la ngay wax baatu naxnu bi yàlla di waxee boppam naxnu nazal na zikra inna naxnu nazal na zikra wa inna lahu la xaafisun te muy kenn foofu nangu na boo yeggagut waaye boo yeggee nag anta rek la nangu fa xar iyal baaba xëyri ah fala budda min shakwa ilallaahi kurbati fa maaliya xayrallaahi jaabiru kasrati wa xar iyal baaba xayri yaa rabbi lam yufiid lizaaka saraf na naxwa damir bi lan la kañ baabika wijhati ilayka bi doxfin waftiqaaratin wa faaqatin ilayka foofu moom yépp yàlla nga koy puus walla mu rëq sa ndigg boo ko ko delloo rek mu rëq sa ndigg dafa lay écraser sax doo nekk foofu foofa nii amu fa man la mukk yow la rek yow yàlla yow la yow yàlla yow la yaa fi ne kenn newu fi yow ana nga ma ne maa ngi ci sa biir yow yow yaay yàlla jeex na